en général ci boppam waxuma la tabaski waxuma la korité waxuma la màggal wala gàmmu yu demee noonu waaye damay wax amul benn réew ci àddina boo xam ne mën ngaa développer te développer sa artisanat d'abord. waaw ça c'est important. parce que euh, soo xoolee ay sàppoo ki siin barki de boo njaay yow Sénégal ñoo yem kàttan. Mm-hmm. mais bi ñu tëjoo développer seen artisanat kenn mënatu leen a jot. dëgg la ci koom-koom donc kon artisanat day day day. Euh, secteur secteur boo xam ne. war a gën a fullaal gën ko faydaal gën koo jox gëddaam. d'accord te it loolu am na ci yaakaar ndax euh, li ma lay wax nii ci wàllu formation. Mhm. liñ ci def kenn fekku leen ci. parce que wax nga léegi atelier yi nga xam ne ñoo moom la ñoom la artisan yi yor di di ci liggéey xale yi ñu fay jàngale métier kenn ku génn emploi direct nga. amul amul taxawaalu fenn amul kii donc ñoo kon loolu kenn fekkulu ci bi ci des itam produit yi ñu defar nga xam ne fu nekk ci atelier bi dem nañ fa représenté fa Sénégal. jox fa Sénégal aw tagg jaayaat loola muy devis ñu jugal ko ci biir réew mi loolu kenn fekku ci artisanat tegal foofu sa loxo